Il n'y a personne de mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle de 2020. Shine bright like a diamond. maa bëgg a waxtaan ak yéen rek tuuti pour wax leen kan mooy Niang Ballo euh, Mamadou Niang nag mi ngi dëkk fii Yaraax fu ñuy wax Kapa ñu gën ko xam ci quartier Mor Fall mooy Antoine fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee fii laa commencé théâtre euh, loolu jëlee ci football nga dem directement ci théâtre waaw parce que man dama doon li tubaab bi wax alterner ñang paaka ñaari boor la hmm. waaw parce que football bi boo gisee léeg-léeg su may joué sax ñii seetaan bu ñu tasanteeg man ne ma meññan xanaa yow da nga mës a fubal mën a leen effectivement man catégorie yëpp am ci fubal fubal naa ko fubal naa minime fubal naa cadet fubal naa junior fubal senior lépp nag ci yaraax fubal naa ay sa yaraax en tant que division troisième division en tant que deuxième division fubal naa fii ci dëkk bi mooy en trois nawetaan fubal naa nawetaan cité port ngi dégg euh, ba sama carrière fubal jeexee ma wëlbatikuwaat nekkaat ci biir football bi nekk dirigeant di encadrer xale yi nekk entraîneur nekk président commission sportive nekk entraîneur cadet entraîneur senior ci nawetaan ba wëlbatiku ñëwaat nekkaat dirigeant ci championnat équipe bu quatrième division xam-xam nekkaat ak xam-xam ci yaraax ba deuxième division ba première division mais li may nekk ci football yëpp boobu théâtre moo jiitu ci man maa ngi dem ci banlieue bi maa ngi dem ci région yi di ànd ak ñiy jouer di jouer fu ne baas nañ fa fu ne tànt nañ fa ñu ñëw jouer def ay sketch def lépp mais bi ma nekkee ak Moussa Sène Absa di nekk ci théâtre bi yàlla def ma amoon benn mag muy Boucar Thioy nekkoon fii ci Yarax nekk dirigeant football bu mag nekk ancien joueur tamit moom moo ma gis ni ma ñan équipe bii mi ngi troisième division te am nga place pour ñëw ci dirigeant yi parce que doomu yarax nga te fan yi maa ngi la gis yaa ngi nekk ci sa liggéey rek nekk ci théâtre bi kaay nga ñëw jàpp ci équipe bi ba équipe bi avancé yeeg première division su ko su la neexee nga delluwaat cinéma bi mais bi may jëlee ci théâtre bi Boucar di ma yóbbu këram ñuy dëkk yoof mu nekk vice président wu équipe bi Ndiaga ja nekk président a boobu man maa ngi kër Moussa Sène ab sax ci cinéma laa jóge demaat ci football bi bi ma demee ci football bi tamit ba ma arrêté waat fu football bi laa dellu parce que lii sama deret la nekk sama sama métier la yàlla moo ko def ci man ma bëgg ko te xam naa ni mën naa ko te xam naa ni man li nekk ci man kaar bi sax génnewuma ko ma ne naa delluwaat ci théâtre bi ci laa delluwaatee ci théâtre bi nag commencé nekkaat ci répétition yi nekkaat di demaat ci kàngam yi di waxtaan ak ñoom ba tournage u euh, Pod et ñëw ñu woo ma ma dem ci laa defee na dellu defaat euh, laay jarab yi. lii bu dul fubal nag def naa ay jaar-jaar yu bëri parce que man bi ma demee jàngi alxuraan ba mokkal yu ma ñibbisiwaatee fii dama dem jàngi métier def mécanique maa ngi nekkoon benn garage bu ma daan jàngee mécanique ku ñu wax Mass Fall yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana su ma mag la moom it mu nekkaat doomu yaraax garage am nekkoon fële ci terrain foyer ñi yàgg dëkk côté HLM bopp xam nañ fa la terrain ay maison de parti fa la jàngee métier def fa presque ay ans 6 6 ans ci mécanique générale bi ma demee ba commencé maîtriser mécanique bi yooyu noonu ci nga xamante ni taawu kër di comme que dama am ay te man maa ci ñëwaat di dem tamit dem géej dem naa bay taxaw ci gennu gaal di lax def naa mbàllaaw def naa sayna ci géej gi def naa filaa tournée dem naa Maare def naa Gétteer campagne yi naa Joal campagne yi naa Kafountine campagne yi naa Mbour campagne naa Ndar mais doomu yaraax laa. rek ci théâtre am na yeneen jaar-jaar. waaw jaar-jaar parce que théâtre du jàng mu metti théâtre dox bu metti la. Euh, munoo nekk un artiste comédien bu kale ci théâtre te génnuloo il fallait que nga génn yi ngay ramasser ci mbedd bi yi ngay gis ba tax na bu ñu lay jàngal théâtre da ngay teel a nekk ndaanaan looloo tax nag presque Sénégal amul raison boo xamante ni nii rek taxawuma fa liggéey yóbbu ma fa mais foo dem da ngay gis seen culture soo demee Casamance bi nga gis ni ñuy dunde nga dem sud bi gis ni ñuy dunde boo demee noor da ngay gis côté nord ay Fouta yooyu nga gis ni ñuy dunde nga dugg Kajoor duggu Bawal bo demé sin nga gis ni ñuy dund yoy nak boko dajalé parce que li nga jang li nga gis mo gëna wo légui nak yoy not noyu ak ak li la yalla mayon ci théâtre ak li la jangal ak li nga gis da ngay nek ndaanaan mais doxna trop. vraiment théâtre ni ci dugg say parents nan la ci gëna soit say say jabar wala say mak ndax. Euh, non bi may bi may dugg ci théâtre xam nga théâtre daanaka dañ maase man ak mom hmm. man ak théâtre dañu maase ba taxna na euh, bi ma koy def sax suñu biir kër la ko njëkkee parce que man do la fi naan bay ci sa wewu man ma ngi commencé comédie ci suñu biir kër sama biir néegu yaay suma ñëw rétan lo ñëpp. daara la yaro ci daara la màggee mom la jang mais ci daara ji sax dafa daan def man suma ma sax limay wax man dama koy jappé wax ni rek mais ji nit ñi sax beneen kàllaama lay nekk ñuy ré ñu naan ma yow daal vraiment da nga da nga nek artiste. foofu laay commencé nag di ko sentir euh, ba ñibbi si commencé ñëw nag di di di côtoyer ndaanaan yu mag yi di nekk seen wet euh, di jàngale ndànk-ndànk ñooñu nga xamante ne ni ay ténor lañu yàgg ci théâtre ma nekkoon ak ñoom ku ci mel ni seen ab sax ma dëkk këram fii ci yaraax nekk ak moom nekk ak ñoom Moussa Fa Ndiaye góor gi Moussa Fa Ndiaye nekk ak ñoom Basirou Diakhaté ndem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko ci laa commencé nag am amuuru théâtre nag. Ah, mu nekk sama xel sama xol mu commencé production euh, mhm. yi nan la ba nga ci quoi. parce que li li li cinéma euh, euh, image maanaam du mhm. image parce que boo dee xool bala may dem di jouer Nafi wala may jouer et wala may dem di jouer laay jara boobu fekk na man maa ngi doon nekk ak seen ab Absa di di di di jouer ci góor góorgóorlu léeg-léeg jouer ak ñoom madame Brouette affaire bi nag commencé nag parce que ñi nga xamante ne ay kàngam lañu nekk ci affaire bi buñ la ko loo rek nga gëm ko danga ciy génn ci laa commencé nag nekk ak ñoom ñu may jàngal may def théâtre yaa ngi dégg léeg-léeg may dem ci théâtre u yi di def théâtre di di di di andak ay ndanan yo xamanteni ni ñi ngi ci théâtre bi muy ñu melni kaddu yarax di andak ñom bina biina ah ñom seega fu nek may andak ñom ay ñom Moussa di dem di jeu ji fu nek ci la nak affaire bi commencé nak di ma gën di dugg légui nak image yoyu nit ñi euh bi production Mboro di commencé di liggéey ñu commencé sen ben produit bu ñu wax Pod et Marichou am sen ben cadreur ben réalisateur bu ñu wax Khalifa Ba mom doomu yarax la ta xamna ma moom moo ma woo nag ñëw integre ma mboroo di na ma gis naa fi loo xamante ne nii di nga ci mën a door sa muy Pod et Marichou bi muy joué ñoom nag Pod et Marichou mu jàll première saison deuxième saison lañ na ma nag am nañ produit buy ñëw bu tudd Nafi bëgg nañ tamit nga def ni nga defoon ci Pod et Marichou ci laa ñëwaat ci Nafi ñu jox ma rôle bi ma daal koy joué waat waaw ci lañ ma woowaatee tamit na ma laay jara ma ñëwaati laay jara amaati sama rôle ma bay ci suma waar nii daal la ma affaire bi commencé di dugg di avancé ak man ndànk-ndànk. ndax léegi yaa ngi ci moro ba ba léegi wala boog yaa ngi yaa ngi joué ñeneen ñoo xamante ne nekk nañu non man man munuma munuma jóge Marodi ah tooguma fa. Euh, parce que ki nga xamante ne ni moom mooy kilifa gi muy Serigne Massamba Ndour moom sama sama xarit la sama wolore la te moom mooy kilifa gi man fun ma wo damay dem jouer tout récemment rek daw ci koor gi dem na jouer ak ñom Serigne Diagne Thiès euh, euh, euh, Even Pro buñ ma soxla damay dem jouer keneen ak keneen bu ma soxlaa damay dem jouer ak ñom mais euh li ñaan bu dina bëgge Dakar ku yegg daanu man produit mborodi la waaw mais du téré nak xam nga da ngay am as boy tollu ak foy tollu ci métier mi ba ku la wo bu la contacter bu ñëw ci waxtaan ak yow bu ngeen juboo ci prix da ngay dem jouer ko mooy maa ngi mbaroti. ndax ñoom ñoo lay jox rôle yi ngay def wala yow yaay choisir non rôle yi nag euh, doo ko du ma ko choisir. ñoom buñ la dis gisee ba xam la. Mm-hmm. ne kii mooy ñang baalo. Mm-hmm. ñoom suñu bindee seen i bagage ba pare teg ko. Mm-hmm. suñu xoolee dinañ ne ñankat suñ ko joxee lii dina ci def cent pour cent. ñu woo la toog ak yow expliquer la tegal la scénario bi nga liir ko yow it nga ne lii de wax dëgg yàlla man sax neex na ma te mën naa ci yokk nangam ñu ne la bismillah. affaire yi noonu lay demee. moom ngay joué boo xam ne nag na lool nekk lu la neex daal. waaw parce que man boo dee xool su ma nee su may joué rek lu may joué mun naa ne gën a neex la ñuy wax mais yëpp may neex parce que man suñ ma joxee rôle ba bindal ma ko ba ma téye ko rek damay làqatoo toog moom dinaa dem ci booru géej gi dinaa dem parc dama ci dinaa wéet fu nekk liir ko étudier ko ba xool lan laa ci mën a dolli. léegi nag euh, noonu ma ciy sonne su ma ko joué bu ma génnee gis nit ñi apprécier noonu la sama xol di sedd moo tax dafa may neex moo tax man du ma foyee benn rôle man du ma xool chaque jour acteur principal luñ ma jox rek damay jàpp ni man ci biir série bi man maay acteur principal bi liggéeyee ko noonu moo tax yëpp dañ may neex mais bu ma xoolee nag bi ma gën a neex dëggantaan mooy bi ma joué ak Nafi waaw boobu daal mën naa ne euh, dugg na ma neex na ma trop waaw boobu moom vraiment marqué na ma trop quoi waaw ni mu demee ni nga ko ni nga ko commencé ba ci digg bi ni mu jeexee yëpp vraiment fépp rek noonu euh, du ko mën a fàtte daal neex na ma trop vraiment na fi. mais tournage bi des fois est wala mu ëpp loolu. non non cinéma nag euh, am na heure bu muy commencé. mais kenn xamul ban heure lay yem. parce que yéen yéen a ma gën a xam sax métier mi euh, da ngay ñëw courant coupé. da ngay ñëw ni tawat ba ah, ngay ñëw euh, temps bi du neex yaa ngi dégg su ko defee lépp rek dañuy toog xaarante dégloonte waxtaan ba mu yemb parce que produit yi boo koy génne ci télé bi di ko jox nit muy tas ci àdduna bi dafa war a nekk loo xamante ne nii du am benn erreur ba tax na mën nañ xam ni tey kat huit heures du matin dinañ commencé wala six heures du matin dinañ wala dix heures dinañ commencé mais mën dem ba six heures matin mën nga dem ba bët set wecc mën nga dem tamit commencé dix heures midi fekk yàlla dogal yow nga pare dem bàyyi leen fa mën na tamit nga mujjee bët set sa fa nga génn ñibbisi mais daal am na heure bu ñu wax ne heure bii kat dinañ tase commencé mais cinéma heure bii lay jeex loolu moom kenn mënu ko garanti ko dañuy fanaan dañuy guddee. voilà théâtre moom sama waa kër niñ ko gisee ci man. Hmm. Euh, li olof yi naan bay ci sa wewu tànk. Hmm. Euh, suñu biir kër laa ko commencé sama néeg yaay su ma ñëwee ci kër gi fekk sax ñu toog plus bu ma waxee ñëpp ree ma ñëw lépp fooree farce fecc daal di plané dem sama yoon ba bu ma duggee ci kër gi sax gis ñu togg loo xam ne man bëgg naa ko damay reetaanloo ñenn ñi wax dara ñuy ree ma lekk dem sama yoon dem ba sama koñ noonu laay dunde fii ma nekk ci Kappa su ma toogee ñëpp war ma bu ma neexee ñëpp dañuy ree ba ma jógee fa amoon naa sama mag ju baax ku ñu wax Ibrahima Dieng yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana daf ma daan wax naan ma yow yaa ngi yàq xaalis bu bari mais dégg naa fi mu naan waxee mais damay ree rek noppi ne ko gannaaw mun a mën a ko lu jot rek yomb parce que nit ku nekk loo ko xam moom moo gën a xam boppam moo tax bi ma nekkee ci théâtre muy samay mbokk euh, samay samay samay xarit samay parents sama yaay samay rakk euh, lijjanti wuñu ko sax parce que xam nañ sama jikko avant xam nañ nu ma mel xam nañ ni milieu bi bu ma fa demee su ma fa defarul nit ah nit du ma fa yàq te du ma fa yàqu moo tax période bi bi ma ciy dem tamit ñu ñoom ñoom ñëpp ñu ñaanal ma waaw ñu ñaanal ma euh, euh, euh, ne ma yàlla na la ci yàlla defal ndam moo tax su may joué du ma tiit parce que li may def xam naa ni mën naa ko li nga may sant mën naa sax lu raw li nga may expliquer damay noppi rek bu heure def jotee ma defal la li nga bëgg soo bëggee ma dolli la mais théâtre moom ma ci am problème ak benn parent wala benn parce yaa ngi jéem tamit pour def ay excursions comme fi nga dëkk ak yooyu. waaw maa ngi préparé wu bu baax te ci laa mës a dëkk. parce que nit ñi sax ñooy yàkkamti naan nàngam nangam. mais bu fekkee dañ la jàngal théâtre nga dund ko dox xam gis euh, euh, doo ko yàkkamti. parce que bu fekkee ñi lay seetaan ak ñi lay déglu gënoo leen aay. te ñi Sénégal ñëpp ay comédien lañ ñëpp a nekk ay bon soo koy togg doo ko yàkkamti da koy togg ay at soo ko génnee jox leen ko ñoom ñu mën koo consommer ay at te duñ ci doyal mais boo ko yàkkamtee préparer ko ci ay bis ay weer soo leen ko joxee ay bis lañ koy consommer rek mu daal dee nga fàtte ko moo tax ñu ngi ci ñu ngi ciy liggéey ñu ngi pare benn troupe bu mag di nga xamante ne ni ñu ngi koy préparer euh, mën na am koor gii di ñëw sax dinañ ci am lu ñu tàbbal parce que am na lu ñu pare te ñëpp lépp yarax la lépp doomu yarax la parce que fii am na lépp euh, dinañ ko liggéey ak waa Capa TV incha allahu rabbi ci bu baax. si si gis gis seen bopp daal ci mbirum koom daal. Mm-hmm. waaw mën nañ ne. parce que léegi bi évolué mm-hmm. euh, muy muy muy théâtre bi football muy làmb ji ña ca jiitu woon ndaanaan la woon mais xëy na la ca daan génne jëriñu leen lu bari waaye nag ñoom tamit ña ngi ca daan sant yàlla mais dafa yokk wax fa dëgg yàlla euh, léegi buñ la fayee da nga xam ni fay nañ la te bu fekkee ni ne ko yàqkat li may wax chaque jour mën nga bañ a leb que mën nga bañ a ñaan parce que théâtre muy cinéma boo mënee sa métier di ko def normalement boole ci discipline ak ay teggin yu mat ak fulla ak fayda ak jom ju mat sëkk maanaam li la nit ñi di jox sax ci mbedd mi boo dee xool day tolloog que liñ lay fay sax wala mu ëpp ko moo tax ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ngi ciy gis suñu bopp ñu ngi ci bég di ci bégalee. comme bëri na ay usines yaa ngi def euh, démarche bu defal leen ay publicité wala. Mm-hmm. waaw waaw waaw parce que nag euh, soo dee xool dañu nekk ci dëkk boo xamante ne nii dafa doy waar chaque jour que jafe nit ñi ñu ngi koy jooy dañ naan place bu ci nekk wala lu ci nekk nañ ko jox ki ko mën ki ko mérito léeg-léeg fii publicité yi da gis un artiste bu mën li muy def bu nit ñi bëgg mais soo ko neree yëkkati tey benn deux millions wala benn trois millions defar ko panneau publicitaire wala nga jox ko mu tourneel la benn mbir ñu koy teg ci télé bi soo xoolee lañ koy fay da ngay dem xool koo xamante ne nii lii sax xëy na du métier nga foto ko affiche produit bi moo tax fayatuñu parce que fa nga waroon a fay fukk benn nga fay fay wala ñaar wala doo fa fay dara parce que ñi bëgg a siiwoo bëri te yàlla mooy xool ku ko neex mu siiwal ko ba tax na léegi entreprise yeeg yooyu dem fa sax da ngay sonnal sa bopp. parce que ki nga xamante ne nii moo ko war a jël jox la ko sax moom moo la koy gën a soxla ndax weccet bi mu ci yaakaar boo waroon a génne un million moom deux cent mille yam cay am sax dem jox benn nit fukki junni foto ko affiché ko da koy gënal te loolu doxalul réew doxalul entreprise bi produit bi muy jaay du ko doxal parce que li ma sàmba mën xëy na ma dem ba mënu ko moo tax léegi yow da ngay déglu rek nekk ci sa liggéey nekk ci sa coin daf say œuvre di génne koo xamante ne nii dem na ba nga xamante ne ni moom li mu bëgg jaay ko caaxaan taxu ko jóg dafa bëgg a jaay lii dëggantaan day génne xaalis ñu tourneel ko wala mu génne xaalis ñu def shopping affiché ay ndaanaan yëkkati xaalis fay jàmm na ñooy mais nag li ma la wax rek gars yi defatuñ ko moo tax nag kaay ma liggéeyal la kaay liggéeyal ma moo gën a neex moo tax je préfère rek ñu toog suñu koy di gërëm bu baax a baax a baax a baax ginnaaw bi ñu sante yàlla julli cant yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñuy mbokk gërëm suñuy waajur di di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di sant borom Touba di di sant Cheikh Ibra ñu ngi sant Capa TV ñi nga xamante ne nii ay ndaw lañu yore seen métier mokkal ko ñëw tey am ak ñun ëttu waxtaan ci jataay bu neex ñi ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen ñaanal yàlla seen métier bii ngeen yor di ci yëngatu yàlla na leen yàlla defal lu kawe seen jort di kontaan ci senegal yëpp di kontaan ci àdduna bi yëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla nañ ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa naa bu baax kontaan ci yéen. Il n'y a personne de mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle de 2020.